jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal bu baax a baax fii ci wasaare di leen wax tey nag euh, émission bu mag bi commencé na tey ñu seet si benn mbër boo xamante ne daa bokk ci làmb waaye namoon nañ ko te gëjoon nañ ko gis tey nag ñu seet ko bëgg leen ko dëgtal fii ci wasaare làmb nga xamante ni nii fii lépp di di di xewee ñu bàyyi ko xanaa mu nuyoo ñu doog a dellu si ci waxtaan wi. Mame maa ngi leen waa waaw ji ñoo ngi lay fay bu baax a baax di la ziar bu wér leen màggal di waaw di ziar képp koo xamante ni yaa ngi seetaan site bi ndax site bu nekk ne site boo xamante ni site bu bakkan la macha allah ay jàmbaar ngeen. waaw di suma waa koñ bu baax a baax ak sama mère yeeg xale yeeg ñëpp maa ngi leen di ziar bu wér-wér ak képp koo xamante ni yaa ngi ñuy maa ngi leen di ziar bu baax di la màggal ak ñi ma nekkuloon fële maa ngi leen di ziar ñoom Yaama ñoom Ana ñoom Souleymane sama soxna maa ngi koy ziar bu baax a baax ak ñoom Maguette ñoom Pape Gisee. ak tonton ñoom yaa am maa ngi leen di ziar leen màggal wér wér a wér. Mhm. laa gis nga joon laa gis si làmb euh, ñu gis la woon demoon Angleterre lan moo nekkoon sabab bi. waaw sabab bi mooy gis naa ni carrément dara warul warul xaar quoi dara warul xaar bi mooy nekk naa ci làmb ci biir làmb affaire yee ngi dox ba mu yàgg yaa ngi am presque ay quatre combats ci saison dem ba yàgg nga am trois dem ba nga am deux après nga am benn pour nga am benn sa après da nga koy lijjanti ma xam ne loolu noonu benn benn tardement gënul gënul gënul gënul loolu quoi. voilà après moo tax ma ni xaaral ma dem su ma demee sama sono moo nekk foofu ma dem toog fa ba ci kanam kanam bu affaire ma ñëwaat ma nekk sama business bopp daal. nga dem fa daanaka su ma déggee wax ji mooy da fa demoon pour xay mat entraîné waa ndax ku la gis état de forme bi xam ne demoo fa woon te di nelaw mais nga dem euh, dellu si bi nga dellu see naka nga gisee làmbu Sénégal ak li nga fi bàyyi woon. waaw bañ demee tam wax dëgg entraînement dafa nekk suñu yaram heure buñ ko buñ ci waree nekk dañ ciy nekk voilà waaye tamit fi mu toll nii ni làmb suma xel ak ñeneen ak seen xel sax da ngay communiquer gars yi da ngay xel après ma dem daay toog foofu ma dama dem foofu après pour toog noonu kese non ndax live bi xaare wul nga nekk benn si des famille boo xamante ne après say mbokk lay yaakaar dafay laaj nga def effort quoi te làmb ko gëmee di def effort pour tekki ay jéego nga gis ne affaire dafa taxaw carrément ni dalul suma xel kenn waxu ci loo xamante ni dalal suma xel après ma dem nekk ci leneen te ba léegi di ñëw naa même position bi la taxawee nii mhm. léegi lan lan lan lan nga yaakaar ne moo waral loolu parce que gis nañ combat yi doon na neex avant ñu am arène nationale mais léegi arène nationale bi ñëw daanaka payoor bi moo ëpp fuuf que. yenn combat yu mag yi fay am sax la ngay fay ci stade bi moo loolu de un de deux mooy da nga koy tëgg mu nekk combat neex nit ñi duñ ñu ñëw lan lan moo waral lool te Iba Mar dañ fa daan tëgg mu fees del amateur yi ñëw mu nekk même bu nekkee combat bu ndaw day fees mais ñu ànd ko Arène Nationale loo xamante ñoo ko mooma suñu bopp ma defe ne fa la woon gën a mën a yombe affaire yi chéré de un mooy neexatul parce que ñëpp ngi kaas waaw gis nga mooy ni que tijji nañ ko waaye ni ma ko mën a waxee daanaka ñi nga xamante ni ñoo ñu ko jàppale sax defaruñu ko dimension bu ñu war taxawoo jàppale ñu jàppale wuñ noonu làmb quoi voilà tamit ci benn côté promoteur yi la ndax boo xoolee nga daan tëgg làmb yow nga gis koo xamante ni moom Tanor Tanor si tam promoteur promoteur yu mag a mag laa wax quoi nga gis koo xamante ne daan tëgg làmb di sponsor nga jox xaalis weex taal yow benn promoteur bu ndaw bi nga fexee jël benn combat

daan encaissé lu weex taal nga yëg loolu dem jël même sponsor bi tëgg ay combat yu ndaw yi def ko en direct en direct yi moo bëri ba nga xamante ni carrément pour muy leer li nga war a feeñ sax dëggantaan pour gars yi xam ne moo ngi feeñ sponsor yi ñëw demeetul noonu loolooy problème bi. moo tax yow arène bi fi mu mënul safe fi toll yi nu mu tijjee nii waroon na fekk lamb yi di daw affaire yi di ni saf ka waaw nga wax fii boo fekkee da tëgg bu fekkee ne sax defoo dara da tëgg combat bu bu tax ñu naan combat a gars yi dañuy ñëw seetaan si ndax fi toll nii gars dañuy dund dañuy lamb quoi loolooy problème bi affaire bi sponsor la ndax fi toll dañu war a jàppale yow mën la sumu waay pour yow nguur gi jàppale gars yi pour war a a bëre wa leneen li sponsor moo nekk loo xamante ni moo tax lamb mën a dox moo tax gars yi ku ci nekk yéen a ngi ñu ngi dem nañ ba xam ni carrément sponsor defatuñu ñuy jéem a détente ay TNT ak ay yoo xamante ni pour gars yi mun a ximali ko affaire yooyu pour làmb mun a dox waaye loolu ci promoteur la nag boo bëggee dégg-dégg moo tax làmb PC wu complètement léegi su ma su ma jugee ci loolu ma ñëw ci euh, mbër yi parce que gis nañ euh, bi corona bi duggee mbër yi ku ci nekk dajale nga li nga am yóbbu ko ministère de la santé euh, bi bi bi bi subvention génnee tamit ñu gis ñu créé 27 millions. jox ko ci loxo ñi nga xamante ne mooy loxo promoteur yi mais euh, ñu ci bari dañoo jàpp ne 27 millions yi dafa tuuti ndax euh, ñi di artistes yi jox leen cinq millions cinq milliards ci ci global bi lépp ñu ñu jël làmb jagleel ko vingt 25 millions noo gisee lool waaw man côté boobu noonu du ma ci sori sax ci dimension xaalis côté boobu quoi ndax man benn sens bu génnee. man kiw ma bu génnul amul problème quoi waaye l'essentiel non bu génnee man man mooy loolu ndax l'essentiel li am solo mooy da ngay man li ma gën a yër ma gën a yërëm sax mooy mbëri nga xamante ni ñoom ñoo jëloon avance man su doon damay nekk koo xamante ni lu ma war a la quoi comme si boo xamante ni daa génn koy jox comme exemple mbëri yi man lu ma doon gën a wax damaan que nga xamante ni jëloon avance exemple surtout booy nday jëloon avance waroon a bëri te bëri wu ñu jël xaalis bi jox leen jàppale leen man loolu laa gisoon. mais yooyu lañ séddale xaalis parce que ñi nga xamante ne jotoon nañoo génnee avance ñooñu lañ ko séddale jox leen ku ci nekk 2 millions. yow danga nga doon gis maanaam promoteur yi ñu séddale loolu ñu compaat ci as lëf jox booy bu ci nekk ka nga xamante ne laaloon na avance. waaw loolu mu ngi dépendre tamit ci ci ci mbër yi ndax boo amee fulla mënoo toog 2 ans 1 an waroo toog 1 an ba làmb ji ba ba 1 an des dellusiwaat te bëri woo kooku làmb ji nii na wartoo mën a bëree. waaw waaye loolu dafa war a dépendre si promoteur te loolu ñu leen jox pour mu leer nekkul xaalis bi tax ñaan xaalis quoi voilà war nañ jàppale comme ni ñu jàppale artistes jox leen xaalis weex tàll a jàppale waaye mbër yi ñoom jàpp mooy benn instant ñoom loolu lañ jàppee daal ndax yow pour muy leer li toll ci ay mbër yi leer yow li toll li nekk ci ay mbër gëm naa ne nekkul sax ci artistes yi te képp koo xamante da ngay politique looy njëkk a def mooy jëli ji benn mbër pour jéem a mbër moomu jéem laa jàppale gox pour nga mën a yéeg kon war nañ mën a jàppale mbëri ci côté boobu noonu te man li may gën a jooy mooy ñu jàppale mbëri nga xam bu dee ñu joxe xaalis jox ko nga xam jëloon ñu avance jëloon nañ avance te bëri wuñu promoteur am xelu ñoom buñ jëlee ñu compal mbëri yooyu noonu jox leen seen xel mën a dal ñun tamit quoi Mm-hmm. bu ñu bu ñu jugee ci loolu ñu ñëwaat ci Mamballa ndax Mamballa gisoon nañ ko mu nekk mbër boo xamante ne mbër mu croyance la képp koo xamante ni sa mbër day bëre ak Mamballa di nga xam ne sa combat du yomb te combat bu métti nekk mais est ce que Mamballa boobu ñu xamoon avant muy voyager est ce que Mamballa boobu moo toog nii ba léegi est ce que saf gi nekkoon ci moom moo ngi ci moom ba léegi. non loolu kenn waxatu ko xanaa kay may may may may may bàyyi mu sedd ci lu munti doon rek waaye ci dimension entraînement ci dimension gëm suma bopp ci làmb kooku noonu moo ngi fii ci dimension entraînement intense. yaa ngi leer xam nga su weeg ñëw toog nii est-ce que maam Balla bi oosoon nga xamante boo bëyee moom moom gàtt gàtt moom boo ñibbi uh-huh. ah boo demee dina tàngalal ndox di la ko dàmpal sa kanam gi est-ce maam Balla boobu moo ngi fi ba moo fi ne moo fi ne yàlla xam na loolu waaye benn instant mooy loolu yow daanaka nga toog deux ans yoo xamante ni bëri woo voilà xam naa nag gars yi mën na perte repère waaye man sport mooy suma sport mu laa gëm quoi ba tax na benn instant mooy ci dimension bi rek bu ñu demee ba xamante ne dugg lañ ci après beneen beneen visage nga gis bokkul ak nga doon gis quoi man loolu laa gëm waaye mambala boobu moo fi nekk mooy entraînement mooy def def waaye l'essentiel bi xam naa comme toog bu yàgg bi nii taw bëri bi tamit affaire yooyu mën na am lu ci gérer tuuti ci dimension mooy xam li gars di mooy def man dama ko mën quoi loolooy problème bi. Ah, ah. mais est-ce que euh, ngi entraîné fii waaw ah, ba ma ñibbisee léegi maa ngi entraînement tuuti tuuti nag ndax temps bi mayuma ko woon tamit waaye xam naa après dinaa commencé waat normal voilà ba ma ñëwee ba léegi toogu moon normalement affaire yooyu moo tax waaye nag ndax boo fekkee yaa ngi entraînement man yow fi mu toll nii boo entraînement boo xoolee bu fekkee sa may na la tranquillement rek xam nga ni làmb ji léegi mu jee tëjaat fi mu toll nii su ma juumul cinq mois moo ci des voilà cinq mois fi mu nii ba nga fi mën loo xamante ni pour muy leer dañ voilà te boo xoolee dañ naan carrément lamb business la boo xoolee li gars yi di wax nii boo xoolee booy ci bëri yëpp ku ci nekk tey fi mu toll nii am nga famille boo xamante ni danga war nga leen jàppale ay booy nekk sawet yoo xamante ni war nga leen jàppale kooku noonu bu fekkee ne daa toog bëriwul deful dara man chance la am entraînement après nga ñëw toog benn place nii loolu loolu danger la ci xale mhm. est-ce que bi nga ñëweek ak léegi promoteur yi woo nañ la la wax la combat non avant may ñëw nag waxoon nañ ma doon nañ ma wax ay combat quoi avant may ñëw voilà man waxoon nañu ma a Zarko avant may ñëw waaye ba ma ñëwee nag après dégg naa écho yu ndaw yi rek après déggatu ma dara waaye avant maa ñëw nag woo woo bu dul jeex ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal boo ñëwee di nga am combat waaye nii nii nii sax sama xel dalu ci pour ma jël combat ndax gisuma ci war gisuma ni war naa cee mën a jël combat daal. non ndax sama xel dalu ci boo jëlee combat après yàggaay yi ne yem da ngay taxaw di xaar jëmale ginnaaw suba te làmb dafa nekk loo xam ne sensible wax sa bëjël làmb rek yaa ngi ci benn dimension bu bokk la dimension bi nga nekk nii doo firi doo nekk si jàmm nooy def mooy da fexe noo libéré yoo noo fexe ba génne ci làmb ji mhm. kon daal su ma déggee wax ji daal mooy fi mu toll ñi fi nekk jël avance moom seen seen ñoo ngi tëdd ci xottu gerte moom. non dafa metti billaay wallaay boo déggee ni may waxee ci ñoom sax nga xam ni carrément non boo ko boo ko nekkul boo ko ne boo ci nekkul nii mënoo dundoo ko doo comprendre boo xasee jël avance avance promoteur nii même boo ci lekkee cent franc mu wóor ni yaa ngi làmb yaa ngi pare ngeen di war pour war a mën a jàkkaarloo rek benn danger da ngay lu éviter lu bëree bëri da ngay nekk ci loo xamante ne chaque jour yaa ngi def effort pour mën a am ndam loolu mooy problème bi voilà léegi nag fi ñu toll ñooñu noonu pour mu leer boo demee fëgg leen dañuy jeexal tàkk day métti ci ñoom force gars yi jàppale leen pour ñu mën a après taxawaat beneen position tey bu fi ñu fi ñu tëjoon bu leen carrément da ngeen pour bëree fat-fat ñoom dañu am problème bu doy waar bu lee gars yi jàppalewul li mujjee mooy dem seen gox bi affaire yooyu képp ku leen mën a jàppale jàppale leen loolu mooy problème bi Uh-huh. léegi bu ñu jugee ci loolu ma ñëw ma gis keroog bi euh, point de presse bi ma gis la fa sa taxawaay te daanaka li ngay li ngay kaasal mbër yi amaguloo combat bu loo neexoon nga toog ne dama jóge suma ma ñëwee damay toog kat som mais nga ñëw jàppale mbër yi taxawu leen bokk ci manifestation bi lan la woon dañ la woo wala yaa ñëwal sa bopp. non kenn woowuma kenn woowuma kenn waxuma sax ay ah, yow dañuy woote réunion gis naa ko nii ci net bi rek affaire yooyu gars yi di annoncé comme si dañoo war a ñëw ma gëm ni laa lu mu dee dee budul man sax am na sumay rakk ni war naa la mën a taxawal pour affaire yooyu bu gaa yi sama rakk yooyu mën a bëree ndax man maa tax ñu bëgg làmb voilà budul man sama rakk yooyu pour muy leer ñoom ñoo ngi visé affaire yi te ku seen kanam ñu wootee a dem su ma demee làmb pour làmb fi nii li gaa yi di woote pour affaire yi mën a tijjeeku ndax neexul neexul xam nga li gën a mooy man am na jamono yoo xamante ni am na yoo xam ne ba ma ko waxee du ma la dégg leer na yàlla dégg ñàkk dégg bi mooy lan pour muy leer lépp na làmb la voilà man gisuma dara lu dul làmb waaye mun naa ne carrément tamit yow fi mu toll nii du ma ne tardeel na ma waaye tamit am na ci handicap bu bëree bëree bëri boo xamante ne def na ma ko affaire yooyu quoi loolu mooy problème bi léegi nag c'est force nga dugal ci maayana booy loolu nekkul benn position a taxawee noonu defal li war a def après nga boole li nga a def benn la quoi. Mhm. ma déggee wax ji daal bu ci tënk mooy mbër dafa a am métier. pour cent xam nga boo ko waxee tamit dafay metti ndax am na ñoo xamante ne fi mu toll nii bàyyi nañ seen life. ci dimension bi ñu nekkoon viser benn mbër bi rek boo ko waxee man man dund wala an dund léegi boo waxee loolu après fi mu toll day métti ci ñenn ñi waaye l'essentiel bu mbër mi daa war a am ci leen loo xamante ne war na ko viser ci lu bokkul ak làmb voilà te du ko entraitement entraînement am loolu donc la bu amee combat mu arrêté loolu bu combat bi jeexee mu continuer mbëri mag yi yëpp loolu la dañuy business ñoom boy business ñoom kon toogu ci tax yow jooyu loo mbëri mag instant kenn jooy ju de moom <laughs> euh, gannaaw loolu fi mu toll nii ñan ñoo see adversaire potentiel Mambala ñoo xamante ni boo mu doon limal cinq mhm. ñi seetaan dañuy xam ne ñii ak Mambala ku ko tëggoon te euh, arène nationale waa Pikine dinañ jóg. non sax man yab ma sama bopp yab ma sama bopp yab ma yab ma ñi ma nekkal ba tax na fi mu toll nii ku ma ciy bëreel du ma bëree ay coroxo coroxo de su ma amul Zarko aw ma euh, nu tee sax. Zarko est-ce dina dina dellusiwaat bëri. aw ma Lac Rose aw ma ñoom ama neex su ma bëree ak ñoom du ma bëree ak beneen mbër de. Lac Rose. Zarko ama neex. Modou Anta am na combat sax Modou am na combat. les de kii sax Yékini Junior Yékini Junior cool gaañ la moom borom baax la te moom benn sang dafa man neex ndax lan dafay sport quoi dafa bëgg sport. voilà moo tax exemple moom bu fekkoon ne carrément may na ma sens ni sax dina xaw a neex tuuti quoi. man de li ma ci jaaxal mooy feebar yëpp dañoo ta dañoo dajaloo nga jël siti loolu dong moo ci metti ñi nga laal ñii ñoom ñëpp ku ci nekk ndam dong moo la arrangé. non man nekkuma koo xamante ni damay ñëw làmb affaire yooyu ngay laam laamee kii du def dara ci làmb ji. man heure bu ñëwee rek pour muy leer yow looy njëkk a def mooy kii am na lu ko indi ci làmb ji say mbokk sax dañu ne kii am na lu ko indi pour ci làmb ji du ma ñëw pour muy leer di def ay affaire u da nga ma war a. gars yi def ñëw nga ba delluwaat. non su su ma leen neexal su ma leen neexal après communication bi damay communiquer nii sax après bu ma sama heure dem jotee ma dem de su fekkee damaa nekk ci dimension neexal pour après ñu jox ma adversaire ba ñëw làmb ji pour neexal nii pour bëree pour ñu daan neexal mooy lan man ma temps boobu bu fekkee ne carrément yow bu neexal ka damay neexal nii bu jeexee sama heure bu fekkee dafa war a génnaat ma génnaat nekkaat ci bu fekkee ne waruma génnaat nag ma nekk ci leneen. waaw waaye comme cadre neexal nii nii aw ma temps boobu de man temps bi moom mooy ni que yow buñ waree bëri ma la daan la te ku ma jël sa avance nga xam ne jël naa sa avance pour l'instant. yaa ngi Yékini Junior boobu combat abi sifflé woon génn seen diggante. lu neex la moom jàmbaar la te day entraînement gëm boppam te nekk xam nga ne ku ku nekk da lay teg lu métti. waaw nekk na koo xamante ne bu tegee ba war a ba war moom bu la cokkaasee dóor la rek fi mu toll nii ba nga maam ba wuyu si la xool nu mu daanee léegi nag bu doon bëreeg moom dafay neex man damay ñëw pour jaay doole aw ma kàttan nag moom doole waaye dama ñëw pour waa. <laughs> fi mu doon de bëreem ngay wax jaayante doole boobu loolu ci Kinizion la fekk. waaw moo tax man la ba léegi mu doon bëreeg moom. gis naa ni der la te day ñëw pour jàpp la xar la ndax macha allah entraînement bi quoi. waaye bu waa ñëw comme que man fi mu toll nii maa gën a nekk xale ci xel bu gàtt quoi damay ñëw jaay ko doole loolu laa gis. <laughs> Euh, gannaaw bu ñëwee ci loolu fan ñii gis nañ ay yu bees yoo xam ne xew na fi classante bi am ci diggante mbër yi classante bi am ci diggante ñi nga xamante ne ñoo jiite seeni i mbër yu ndaw ak mbër yu mag yi coow li dégg nga ko no noo noo nooy loolu ci diggante la de ak Eumeu Sène booy waa Pikine wax nañ waa gaa wax nañ diggante ay guy gi ak booy yi nga xamante ne ñoom lay àndal noo gisee classante boobu parce que dem na ba jéggi dayoo yooyu amul foon avant avant avant nga fiy jógee nga ñëw fekk ko fi noo gisee loolu waaw daanaka ku ci nekk foofu sa xel sa xel foofu la toll ñenn ñi ñoo ngi jaayante mbag affaire yooyu ci benn côté ut mafia pour ànd ak ñoom ñenn ñi di def li nga xamante ni moo leen di arrangé. voilà ku ci nekk da ngay xeex loo xamante ni yow pour muy leer yow xam naa sa sa côté bopp rek pour mu pour mu gën a normal rek loolu mooy problème bi. bu dee ci dimension mbër ci dimension mbër moom ci côté Eumeu seen ak Ama Baldé ci astafurlah Eumeu Sène ak euh, Lac de Guiers damay jàpp ni carrément dimension làmb la rek. voilà lamb moo baaxoo détails comme si que voilà pour stratégie pour jéem a xool non yàqale gain waa ji ngay bëreel pour mun ko voilà mun ko wala voilà voilà ci lu bëree bëri quoi man jàpp naa ne loolu la waaye xam naa nag ñàkkul ni tamit moom xelam fa la tolloo ba mu koy wax waaye lépp loo gis ci àdduna dafa laaj tamit nga am staff. loolu détail nga détail ko ci anam bi nga xamante ni carrément du gaañ du gaañ sa morom bu jeexee après boo mënee nekk ak moom nga sig ngeen nice quoi la borom baax la wax dëgg yàlla voilà noonu laa xamee nag quoi te Eumeu Sène moom tamit borom baax la jàmbaar la kon làmb moo leen boole dañuy ñaan yàlla làmb ji am bu fekkee ne na am kuy daan daan affaire yooyu quoi ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène dama koy am ndam quoi ci côté boobu noonu voilà. voilà bu dee côté guy gi nag foofu noonu kon ko man jaww man bokkuñu kii nag man foofu doo ci sori bu baax baax quoi. waaw bu dee côté guy yi quoi waaw moom affaire yooyu moom dama koy xamal ni carrément boo nekk ak say booy rek l'essentiel da ngay xam ni carrément yaay kilifa téléphone nag du doxee loolu pour muy leer lu ñëw après nga jéem a dégg waxtaan ak say booy sans compter def loo xamante ne après ku ci nekk dala ciy ŋaañee na xam ne kilifa la daal foof na mhm. euh, fi làmb toll dégg naa léegi sa biir wax nga ne làmb dafa xaw a sooxe làmb kenn xamu naka lay doxee mu am combat yu mag yoo xamante ne dafa jot a taxaw mu ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ci diggante Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye non gi euh, Balla Gaye ak bomba Lac la Guiers ak Eumeu Sène mu nekk combat yoo xamante ni mën na suqali làmb et puis mën na yóbbuwaat làmb fu sori loo may waxee ci combat yooyu. non làmb yooyu du suqali benn làmb nag du suqali làmb de. suqali làmb déedéet nu muy suqalee làmb lu am di am di amaat di amaat loolu lay suqalee làmb dana neex na gars yi def ambiance di ndax làmb lu làmb dee nii làmb bu fekkoon mu ngi dox ni mu doon doxee dëggantaan bu njëkkoon du demee noonu quoi doo xalaat sax ay combat ñoom Balla Gaye euh, Bombardier loolu du combat bu suqali làmb boo nee ma sax yow Ama Baldé sax euh, Mourlo sax ma mën a wax. ñu changé système bi. yow yow su ma déggee ni ngay waxee maanaam li nga gënoon bëgg mooy. Ama Baldé Mourlo. Tapha Tine Boy Niang. ah Sa Thiès ki ci kaw ah keneen ak keneen guy gee ki ci kaw yow loolu nga gënoon gis. man combat nga jël Boy Niang pour muy leer boole ko bala Gaye nga jël pour muy leer yow keneen ak keneen boole ko keneen a keneen jël. Sa Thiès Eumeu seen Eumeu seen loolu mooy làmb. gars yi après mun a mag ñi mën a jàpp booy duma leen wala mag ñi duma mag ñi euh, xale yi jël mag ñi jëm leen du mag ñi loolu moo doon mënoon làmb waaye pour l'instant nii pour muy leer fiñ temps bi toll la quoi temps moo toll foo xamante ne naan day suqal làmb suqal dañoo sonn dañoo sonn ci ci deuxième fois troisième fois loolu su xolewul làmb de dafa gën a diigal làmb sax. kon est du yéen loolu moo leen gën a empêché pour ngeen bëyee. waaye bu fekkoon ni carrément mooy soxla làmb pour muy leer yow bu xoolal booy yi booleen booleen ak grand yi booy yi gën a bëgg sax làmb yi taxaw làmb yi am pour muy leer pour ñu bëree xoolal comme ku ci mel ni Siteu ku ci mel ni Siteu ak Papa Sow Papa Sow léegi moom day bëgg làmb ji am kuróokut pour ñu bëree pour mu libéré wu xoolal ba mu bëgg a bëree Balla Gaye ne pour làmb ji taxaw

ci yooyu jamono boobu xalaatoo làmb moo ngi dee wala deewul. nga koy defee ba mbuur mu mel ni làmb moo fa ay yow kenn waxatu ko Balla Gaye demul Modou loo dem affaire yi nekk benn affaire boo xamante ne lu doy waar. kon fi mu toll nii yow man la sum waay lii nii suqalul làmb boo defoon mbuur bala Gaye Balla Gaye euh, bomba boo defoon mbuur signature bi après quelques personnes nga am nag de ndax dañ ko miis quoi ñoom seen bopp quoi. waaw dañ ko miis seen fans dañ ñëw nag waaye dañ ko miis waaye tey bu fekkoon da boole bala diw ak diw nga boole Balla Gaye keneen ak keneen ak keneen ci booy ndaw yi nii après day amaat yeneen booy yi dikkaat ñu dañu am courage sax ñu dañoo ñu dañoo suma daanee dinaa bëreeg Balla Gaye de ñu dañu am courage gis carrément yenn mbër yu ndaw yooyu gën a gën ay faayu mbër yu mag mbër yu mag yi gën a ay faayu mbër ndaw ñu ñu am courage war war nañu yëg ci kaw ci kudookut bu gaaw a gaaw waaye loolu loolu ñu téye ko benn dimension boobu noonu ñoom boo ñaa taxaw fi ñu taxaw après ñun duñ bëree ñu dañuy jàpp ni carrément même même. booy bu ndaw ah, waaw parce que que ñoom seen biir sax ñuy continuer di bëriwaat moo tax bu ñu VIP VIP moo tax booy ku ci daan benn mag VIP day jeex VIP day toj ñu xool benn anam booy mën a yéeg sax après ñu wax ay VIP ñu teg ko ne ñun bu ñu gisee après ñu courage pour war a ñëw tey Siteu ñëw daan daan daan daan Papa Sow wala Papa daan daan Siteu affaire bi voilà nekkat ci benn dimension noonu mooy Gambie après ñu boole keneen ak keneen keneen guy gi kee dafa neex rëg-rëg loolu mooy làmb rek daan guy wala guy daan rek loolu mooy làmb pour l'instant nii waaye comme lu soxla làmb moom loolu bokk ci moom quoi ay Balla Gaye ak Bombardier loolu soxlawul la noo suñ président CNG bi ñu tëjee ko. président CNG bi. Euh, man na noo gisee président CNG bi de ñëw na woote waxtaan woo ñëpp waxtaan ak ñoom nan nga gis ne bu ko liggéeyee wala nan nga gis ne su ko doxalee làmb dina dina mën a am beneen jéego bu mu tegaat. waaw président bi dañ koy ñaanal quoi. comme que day doog a ñëw te fi toll nii kuy doog a ñëw moom fi mu toll nii xamaguñ yow ban dimension nga ñëwee dañ lay ñaanal yàlla suñu borom taxaw la may la kattan gi tax fi mu toll nga ñëw may la xel goo xamante ne pour may leer say lépp daal di tàkk ca kaw loolu lañ xamante ne moom la ñu mëbët te bëgg ko ñun mooy affaire yi avancé mu gis ci boom ñu ci gis suñu bopp suñu borom def loolu quoi ñun loolu loolu loolu lañ koy ñaanal quoi waaye tamit bu na jàpp ni carrément làmb dafa wàcc ni mu wàccee fi mu toll nii moom moo ko mën a yëkkati voilà am na loo xamante ni ñu ngi doon classe ay Alioune Sarr Alioune jàmbaar la def na xamante ni pour muy leer daanaka ñun lu ñu fekk la ñu fi loo xamante ni carrément wax dëgg yàlla ku ci nekk gis nga sa bopp ndax déggoon nañ carrément bu moom taxaw na loolu ba loolu avance ñu koy ñaan moom tamit fi mu toll ni mu ci wàccee tamit yàlla na yàlla bu nekk ci leneen a làmb voilà ñuy ñaan daal ki nga xamante ni mu jàppale làmb jàppale boppam te bañ xool intérêt wala intérêt beneen koo xamante ni mooy njiitam loolu laa lañ koy wax fu mu nii. soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax ñu tëjee ko. waaw kàddu yu mujj affaire yooyu ñoo ngi sant ko tedd gi bu baax a baax di sant di sant seen site bi di wax ni carrément seen site bi yàlla yàlla def mu nekk ay télé télé télé ndax jàmbaar ngeen. voilà chaque jour yéen a ngi ci terrain bi di jéem a xool nan ngeen def pour yow di génne yenn gars yi ndax mënoon nañ mënoon nañ ci beneen fekk ngeen ne carrément tamit ah kii de mooy loolu jarul beneen sang mooy loolu quoi waaw may nuyu suma waa ko ñu baax maire yi ak paa yeeg yëpp ñi nga xamante ni dañ maa daan bégge di sonn ci man guddi ak bëccëg sama xarit yi nga xamante dañaa ànd ñoom Moussa Mamour waaw ñoom Ahmed ak ñoom ñëpp maa ngi leen di bégge bu baax Papa Gueye Assane Cheikh voilà ak Laye caam mi nga xamante ne suma xarit la ñu ngi ànd guddi ak bëccëg Mbarka Alsaan mafia boobu noonu maa ngi leen di bégge ñoom sukka ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar sama rakk yi nag maa ngi leen di bu wér ñoom Ali nag ñoom Sora ak ñoom ñëpp voilà ak fi ma nekkoon sama soxna maa ngi koy jaar suma yaay maa ngi koy bége bu ko bu wér a wér ak suma goro maa ngi leen di jaar bu wér ak képp koo xamante ni dégg nga ma rek jaar naa la bu baax a baax ca kaw ca kanam incha mhm. gis ngeen noonu lay demee ak Mame Balla kontaan nañ ci moom ndax ni ma koy waxee chaque jour rek Wassare Lamb lépp loo xamante ni ci làmb lépp loo xamante ni dafa doxal làmb ndax Mame Balla def na lu ne ci làmb moo tax Wassare Lamb ñoo fekk fi jël ko su ma jógee foofu damay gërëm sama cameraman bi moo àndal nga xamante ni l'infatigable la du sonn benn yoon kàggu ko wax na nag temps yi am tout tànk bu bees ñu koy ñaanal mu gudd fan wéegi yaram ah may bàyyi ko fi ba ci kanama kanama kanam maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy maam Dia maam Dia Kébé ak Marema doomu ndeyam maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm di nuyu Aziz Fashion borom Colobane di ko wax ne nag ah yére yi kaagu neen gisagul yére yi yére yi egseegul waaye xam naa ne sa loxo dina ñëw kaagu di la bàyyi nga tëj ba beneen yoon ak Wassare Lamb